ci ci sumb waxtaan bi waxtaanee wàllum politique ñu war a jëm ci installation wu assemblée nationale ñu gis ne war na daar en tout cas bu ñu proclamer résultat définitif yi ñu gaaw installé ko pour mën a dabb voté budget atum 2025 kon mën nañ jàpp ne ñiy liggéey ñor ña leen waaw ah muuru na ko c'est-à-dire waxati nañ daal waxati nañ daal hmm. nañ nañ lañ nangoon rek man moom boo waxee damay da xam nga wax nu ma ko jàppe hmm. raw buum yeew sa bopp boo wa waxee rek raw nga buum ba takk sa bopp léegi nag say jëf rek moo la mën a tekki parce que yaa wax ba yeew sa bopp ndax yaa ne mën naa mooy yeew nga sa bopp léegi nag pour tekki sa bopp da ngay jëf. Hmm. jëf ji moo lay tekki mooy askan bi dañuy ñëw man sax contre naa li politiciens yi def ni contre naa nga hmm. gagné di jubilé loolu dama ko contre loolu ku nërta liggéeyee koy def ku xam li ko xaar du jubilé Omar bun Xataab bi ñu ko joxee xilaaf jullit ñi hmm. moom da doon jooy hmm. ndax dafa xam li koy xaar xam nga kañ lañ war a jubilé hmm. soo paree sa ñaari ay xoolaat sa bopp boobaa bu la neexee sax jubilé la Cheikh Ibra doon wax xare ka daw dàqul ka dee dàqul jaloore borom mooy dem nettali ko mais ñuy gisoo la ñu jubilé ngeer wala. ah ñi koy jubilé lañ dëkk ba léegi ñu ngi ci jubilé yi kay ba léegi ñu ngi ci jubilé yeeg ndaataata lax yeeg gundaa ndaat ak a kañ seen bopp tagg seen bopp ay génie politique yi déggoo ko fi ay messi teel na de. ah déet mais loolu observateur yu mel ni yow. jàngatkat yi ñuy jàngare bu ñu xoolee fu mu jaar ak lim. fu def yëpp waxi kese la jàpp ne génie politique la lépp waxi kese la. déet mais moom moo moom moo wax ba ba ba ba. fal président waaw wax ji nag wax moo tax yeew na boppam ku yeew sa bopp waroo tala jubile wëroo tàngal sax ku lan la Messi da nga naan man yi bàyyi leen ba ma yeewee. seen bopp munul tontu ñëpp nag ngeer. waaw d'accord dama koy def a sànq leen déglu. wala bu mu ko jël en ngi leen di déglu moom. ok inévitable mu ngi hmm. ci wetam de. am na ñoo xam bu ñu la taggee automatiquement day agsi parce que duñ n'importe qui sax bokkut ak man mi nga xam ne man euh, ànduma ak yow ci dara su ma la taggee tam mooy loolu quand même léegi ni ñu bëggee mu daar ba ñu installé assemblée bi pour mën a jëm si li nga xam ne moo di euh, waxtaanu budget beeg yeneen ya ca aju xam naa ne yooyu itam euh, dinañ ci gën a xuus euh, tout waxtaanee ko bu baax a baax parce que aussi foofu la ca sali gis nañ waa PASTEF daa di fay amal benn séminaire ngir mën a tàggat ñi nga xam te ne ñoo di ndaw ya leen war a teewal foofu la ca pencum ndaw réew ma Ousmane Sonko mu ngi fa teewoon moom gis na ne ndaw yi taxawaay bu ñu war a mën a am moom mooy fexe ba am assemblée ba dafay juboowaat ak askan wi cest askan wi gis seen ci ne assemblée nationale di doxee euh, quoi qu'on puisse moom mu yëkkati message bu wax ko gis nañ ne mën nañ ne royukaay la ci ba mu nekkee assemblée nationale ak léegi wala yow jàppoo loolu. Mm, moom assemblée. ak dam fa joto a taxawaay ba mu fa jot a am ak. assemblée ke xeex na fa xëccoo na fa. Mm-hmm. député bi fa njëkk a xeex de moom yaakaar naa moom la moom laa gis de moom Mbéri Sylla seen xeex ba. ah déet. benn da daan wax ba pare du diglu kenn a day dem yoonam Diouf du fa fa fa la mbajee woon xaw ma fa lañ ko mbajee woon. donc ah, du moom moo fa njëkk a xeex man na kii laa gis ko fa xeex Sonko. mais bu ñu taxee ci côté proposition ci côté dénonciation. ci côté wax jàng waaw da ngay dénoncer loo xam ne askan wi gis nañ mais Sonko la ma fa doon dénoncer ay discours am mu ngi fa doon dénoncer est-ce que dëgg la gis nga dara dara dara dara lu ci lu ci yoon àtte ba ne nii la. bi mu waxee ne assemblée du fay impôt. waaw léegi est-ce dëgg la woon. gars yi nee nañ dëgg. ñëpp indi seen i de salaire. ñu gis ne aussi tamit li jàngalekat yi di fay ci impôt moo ëpp li député yi di fay. déedéet la kenn gisu ko léegi député yi ñaata la ñuy fay Ousmane Sonko demoon na sax ba ne est la ñuy fay loolu yi bari gàddu seen bulletin salaire indi ko ba pare mu wax ne député yi député yi ñu ngi leen di waaj a jox <laughs> ku ne 10 millions. ba Moustapha Niass naan ko loolu man naan ba pare ne Moustapha Niass. Ah, mii yëg na ko ah déedéet mais est-ce na ko kon loolu du alerte Moustapha Niass ne ko indi kaamil maa ngeen njàpp ma waat ne musuma ko dégg duggul sama bopp muy lu garaaw nag ne ko man fi ma toog maa ngeen njàpp nga indi kaamil léegi ma waat. ah loolu wax ak wax la rek ngeen. non ni nga def ba da ngay xool ñaar ñi wax est-ce que doo gëmee ñaar ñi wax ngay xool kii yàgg naa tuumaalaate kii yàggoo koo dégg muy wax lu dul dëgg man de mosumaa dégg Moustapha Niass wax lu dul dëgg suñu maam jooju waaye Sonko moom tuuma yu dara fondewul moom yàgg na ko def. Hmm. tuuma yoo xam ne da nga koy topp ba ci biir mu nekk ci corniche bi kaay wuy ji mu nekk di wër mbedd yeeg yooyu yëpp moom yàgg na ko def. yàgg nga ko tuumaal kaay une commission d' enquête mu ne man damay dem gàmmu Fassou Mbodian du ma ñëw ci ku problème 94 milliards yi. kon yooyu kon munuñu téye ay waxi Sonko daal fi ne nii mënatuñ ci téye dara jëfam la ñuy xaar mais wax ji moom wan romb nañu. mais bu ñu gisee soññ gi mu nekk lu rafet c'est-à-dire na député yi wane taxawaay boo xamante ne askan wi dinañu gis seen bopp bi. rassemblée nationale soññoo woon na fi ci déclaration politique générale bi da ngaa fàtte bañ ko falee defut un mois mu ne nañ ko indil seen programme ministre yëpp day dem dafi déclaration politique générale ñu naan ah, lii des indi nii lañ ko doon waxee sax ñu naan lii de mu ngi doog a am. waaw fal. moins de un mois muy waajal déclaration politique générale kon réew mi mu ngi jëm ci yoonu <laughs> émergence ndekete yoo ñun ñu ngi reculer <laughs> ndekete ko bi bi mu tiiree fere amee bi ñu yaakaar day dem ndekete dafa dafa delloo rek arrière. Hmm. <laughs> xoolal fu ñu mujjee tey ba tey déclaration politique ah, générale mais waxoon na ne nañu defaraat seen règlement. intérieur léegi ne da njëkkeewul foofu tamit comme njëkkee woon la dafa njëkk ne indi leen ma affaire yi damay dem fan la mujjee defar leen ma doog a ñëw léegi mënut a njëkkee defar leen Sonko kay ay soññeem moom bu ci sukkandiku di Mohamed. donc na nga jàpp ne waxi kese lay doon. waxi kese ah loolu laa ko jàppee ndax looloo mais mënu ma ko gëm te du ma tee xëy de tey ma wax la de gàtt gàtt. waaw ah. Sonko bu ne woon suba bu leen xëy ku nekk naa la versel nangam sa compte man ma xëy naa liggéeyi lu tax ah dama ko gëmut. xam nga kay damay liggéey ba gis message mu ne teng ma ne ah ji wax na dëgg tey de wax na dëgg daa di def nii daa di xool nu ma def waaye du ma tee xëy de loolu nag man la engagé. Hmm. du ma teree liggéeyi de moom dama lay wax lu leer nag. léegi ndax eh, ah. bàkkee la nga ne seen huit milliards yi ba sànq ba suba dégg naa ñu ngi koy laajaat. huit milliards mais daf ne dugal nañ fa sept milliards sept milliards moom mooy ni ñuy. évacuer ndox mi ni ñuy indee ah dund gi fa jot a ñëw ak ni ñu eh, déployé yi fa jot a nekk eh, yëpp déedéet ngeer non non non ngeer na ngeer ngeer ngeer xoolaatal bu baax li nga maanaam déployé nañ sept milliards pour assister leen sept sept milliards yooyu. si ngeen ah, dégg ne yow yow yow loolu nga gis waa Bakel a ngi lay dégg. yooyu ñu ngi lay dégg. yow ndox ma dellul boppam nga naan ku delloo ndox ma. te Bakel bu ñu mere woon gars yi xanaa dina feeñ ci élection yi. gis nañ nañ def ci élection yi moo tax moo tax bëgguma woon ñu laaj laaj gi ñu doon laaj kay neexuma. Hmm. doon laaj moo ma laaj gi ñu doon laajaat milliards yi moo ma neexut. d'accord mais ñu gis ne dañu war a baral jéego yi pour mën a voter. waaw looloo jaadu 2025 looloo jaadu. mën a jublu nag ci mbir yi gouverner ngeer mën a kontaan. man ne maa ngi toog di xaar xam nga xaar tàngu diglu tàngu. Hmm. man li nga may wax nii mu ngi dugg sama noppi xam nga lakkuma deful dara. moo tax diglu méttiwut nañ diglu rek man moom seeni wax téyendi naa ci. Hmm. comme soññee nañ naa téye ci loolu rek comme jomaay soññee na conseil des ministres naa téye ci loolu Sonko soññee waat na naa téyendi ci loolu. Hmm. du ma ne nag li ñu wax du dëgg waaye du ma tere xëy liggéey yi de moom bu doon lu ñuy joxe la buñ ko defee nag ma gis ko fii laay toogaat ne ah. sant yàlla beneen bi tamit maa ngi retiré remerciement bi ma remercié woon Jomaay. ci compte compte presse bi ñu waxoon ne dañ ko kenn débloqué wu ko. déedéet kañ ba tey. vraiment loolu moom réccu naa ko li ma ko remercié woon. non donc yow da waxoon bu dee am na. waaw kay waaye yooyu yëpp moo tax retiré waat naa la ma la ma ci remerciement ba rek. man <laughs> mais kan xibaar ne du ma gërëm ko deful dara. non amut. na ci presse laa ne quand seen compte yi ba tey ñu ngi ko téye. dañ waxante dëgg. d'accord te wax dëgg yàlla yooyu tamit day tas yaakaar la quoi nit ki boo dul tijji ay affaire am bàyyi ko rek bu ko bëgg a wax maa ngi tijji mu daw songu compte ba fekk. Ah, moom moo ah, nañ koy saytuwaay tax nañ ma remercier ku ma wërta remercier te yooyu yëpp baaxul ci man dama war di gërëm ku def dara man réew mi dañ ma fee bàyyi pour may gërëm ko def dara. Uh-huh. képp ku fi def lu baax nañ ne wax naa ko gërëm sant ko ku fi def safaan ba tamit naa ko jéebaane ba ñëpp yëg ndax mu jubbanti ko man posture boobu laa taxawee awma kenn problème Hmm. d' accord euh, Nguer gis nañu aussi bu ñu lay présenté léegi dañ naan Nguer membre C221. waaw kay. élection yi jeex na. waaw gisuñ benn rapport boo leen ci def gisuñ ngeen def si benn observation lan mooy problème bi C C221. non problème amu ci. parce que. non maanaam dafa mel ni fonctionnement bi demeetul noonu. parce que léegi sax dem nañ sax ba yirim mi ko créé woon. Nguer a ko ci ëpp. d'ailleurs barki démb rek d'ailleurs barki nañ. Uh-huh. mais man man man. mais su ma gis plan d'action yi ñuy waaj. justement voilà fallait que ñu def ndànk parce ku ñëpp xam foo jëm doo egg te heure bi Sonko dañoo teg bët.